maintenant rapidement rek directeur général bu mu ñëwee dañ toog observé ko may ko 100 jours yaakaar naa ne 100 jours dana Dakar ndikk ndaxte moom bu mu ñëwee chance bu mu am yeneen directeurs yi amuñu ko daf fi fekk ay kaar d' abord dafa ñëw fekk fi ay kaar fekk fi ay projets yoo xam ne ay projet de développement la ba pare fekk fi benn siège bu pare dañu dem dikk bu ko neexoon mu toxu suba dootu loué yooyu avantage la ba pare donc bu ñu la mayee 100 jours évaluer defaloo ñun dañuy monter au fourneau dal sa kaw bu baax amul problème ñu li ñuy wax dafa leer nañ pour nga defal liggéeykat yi parce que am nga moyen pour def ko nee na Dakar bi 50 lay am par jour 1 milliard 500 de recette di le chiffre d'affaires lay am am na somba bu ko si génne woon mën na ko dugal si liggéeykat yi mais il refuse de le faire loolu mooy problème bi du leneen nous sommes logiques avec nous-mêmes ku def 100 jours 30 mai ba tey na loolu boo xoolee man waxuma depuis 33 mois dama doon alerté defee 100 jours ma évalué ko xam ne ki defaru moo tax ñu monter au taxaw jàkkaarloo ak moom pour mu régler problème liggéeykat yi beneen question ngay pose du ñun ñooy nekk di tëdd ay chiffres di contredire ay chiffres non am même bu ñu amee woon chiffre tey c'est ñun du obligation ñu génnee ko parce que dafa am un nouveau étude bu ñu def nee na dafa am personne pléthorique mën nañ njort am ay ay ay emploi fictif mais na d'abord na génnee objectif personnel bi c'est très simple ce qu'on dit loolu rek lañ soxla ba pare moom bu demee ba génnee ko nag si lañ koy mën a contredire par rapport aux chiffres yi mu wax mais ñemoo ko génne lu tax ñemoo ko génne te audit pare na loolu lañ ko war a laajte la moo tax ñemul génne audit personnel Dakar bi dikk bi c'est ça le problème. d'accord léegi nga may ma ñëw. ok si benn problème dégg ngeen problème mu receveur yi am foofu ànd ko Dakar bi ngeen ko coow am na foofu parce que dem na fa fi xas les receveurs wala seen conférence mu def <laughs> parce que mere mu ne neen receveur du ñu versé loo xam ne ni amul encore une fois nan nga mën a nekkee dans une société tey sa dem di leen verser mais waxal sax mais même je condamne sax nga dem di wax mais lu gën a bon sax tey jii moom mooy da nga di wax loo xam ne ni amul ne receveur du ñu versé loolu dafa mën a nekk entreprise boo xam ne ni receveur bi nekk dafa am ay caissiers jour ñuy versé chaque jour ku boo xëy bu soowaa doo xëy c'est évident nous sommes une entreprise organisée fii la ko fekk mu nekk lu doy waar léegi boo gisee ma jël pàcc boobu noonu parce que dañu nekk ñoom en lutte actuellement les receveurs de Dakar Midi dañu nekk en lutte bu metti parce que non dañuy lutter parce que c'est un corps de métier boo xam ne dañuy dund benn injustice tey lan mooy injustice bi laa bëgg leeral benn yoon ñu xam ko ñoom bu ñu ñëwee dafa am benn programme bu ñu tuddee programme de digitalisation mooy ay programme ticketing ay programme wave maanaam li liggéey euh, receveur léegi bu ñuy jaay ticket par wave la ñuy verser non mën pas léegi ñoom bu ñu demoon ñu def formation ñu ne leen téléphone yi ngeen di jox si ngeen di versé après maanaam si ngeen def seen transaction yi yi ñu ne leen téléphone yi ngeen koy jox mais bu réeree doo leen fay ba pare jël seen données personnelles yi n'est-ce pas di ko utiliser léegi ñoom bu ñu liggéey ba benn diir ñu jàpp na ñoom lii ñuy liggéey tey war nañu si defal ay prime parce que ñoom ñëpp bu ñu ñëw Dakar mu dikk seen outil de xam lan la woon ticket la woon ticket la woon ticket encreur ak chiffreur mooy maanaam lu ñuy oblitérer ba jaay nit ñi ci loolu la moo seen liggéey Dakar Dem Dikk ba si biir yokk seen matériel jox leen ay téléphones ñuy versé jox leen ay application maanaam ay ticketing ay yeneen machine te bu si nekk tey ji boo réeree bu réeree cinquante mille fan lañ lay dagg ticketing bi euh, machine euh, TP bi cent quarante mille lañ lay dagg taxaw na ñoom bañuñu liggéey si bañuñu ko di verse normalement mais nañ defal ay prime de responsabilité ak ay prime de risque yu tollook lii ñu jox leen yokk seen liggéey liggéey boobu noonu receveurs yi bu ñu toogee def seen rek ñun boo xoolee 23 points yooyu loolu sax si la bokk. d'accord dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat ma eggale tëj rek même pas une minute rek une minute rek mm-hmm. si la bokk. léegi receveurs yi na ñoom bañu ñu verser par comme li nga applique comme def par application pour verser bëgguma tudd li ngay wax. Mm-hmm. ñoom léegi comme fayuñu leen seen prime ñoom dañuy dellu di verser normalement à la caisse parce que loolu moo fi amoon. d'accord gars yi bañal leen ko di leen jox ay demande d'explication di leen xoqatal recevre taxaw nañ fu ñu taxaw tey moo tax maa ngi leen di accompagner man fu ñu teg seen tànk foofu la. d'accord d'accord.